feebar bi nga xamante ne ni mi ngi law jaaxal na lool askan wi gannaaw ba nga xamee ni loolee ñu dippee cas communautaire ñëw na ci rax li ni mel nag coppi doxalin wi nga xamee ni comité local de lutte bi jëloon nañ ko li ni mel sax tax na ñoom ñoo ñi ne daañu xool yeneen matukaay yu nuy xeexee boobule feebar. dañ ciy soppi dara parce que xeex moom mm, foo toll rek da ngay xool. par rapport ak li nga xamante ne moom nga janoon naka ngay ta amee taxawaay bu gën a bu gën a wér ngir mën a koo daan comme ni nga ko waxee am na ay li ñuy tudde cas communautaire mooy cas yoo xamante ni ñu ci communauté mais xamuñu kan moo leen ko wàll comme xamuñu kan moo leen ko wàll nag léegi kon dañuy jàpp n'importe qui comme porteur de la maladie que ça soit symptomatique comme que ça soit asymptomatique mooy mu am màndarga comme mu ñàkk am màndarga. ragal nañu limu mu contamination yu yi daal di yokk li ni mel tax na ñu càkku rek ñu arrêté wàllante gi ca nam gën a gaawee docteur Fall jukki ne li ni mel nag pour ñu def ko faw rek ñu lëkkaloo ak askan wi. waaw jamono ji moom comme ni ngeen ko xamee am na ñu ñu nekk ca suñu centre ba am na ñetti nit ñu fa ne waaw ñetti nit ñi nga fa tubarkàlla depuis démb bon. ki démb la ñu am benn tey démb ñu am euh, ñu am ñaar donc ñett nga fa. waaw mais comme ni mal la ko comme ñett lañ kon ñi ñetti ñetti njaboot la donc euh, njaboot bu njëkk bi moom en fait moom dafa dëkk moom kenn donc euh, yeneen yi donc am na fukk ak ñeent ak ak juróom fukk boo leen bële muy juróom bu juróom benn fukki ak juróom benn fukk ak ñeent. ka communautaire moom bu xasee dugg ci réew mi moom partout cas communautaire la ñuy am. kon nag loolu moom ñun dañ koy xaar bu baax ndax <laughs> mooy li ñu waxoon li ñu waxoon lii lañ doon moytu. ci beneen wet gi moom daañu amal ay opération de désinfection. ci euh, marché yi nga xamante ni nii ñoo nekk fii ci diwaanu Touba. waaw comme ni nga ko xamee jotoon nañ def ay opération ci marché Ocass ak yenn bërëb yi euh, waaye léegi ñu ngi ay cas communautaire donc mooy wane ni ñu ko waxee woon euh, léegi daal feebar bi donc dugg na. toog na bokk na ci ñun léegi nag euh, opération yi ñu defoon amoon na effectivement ay ay ay résultats mais léegi euh, yàgg na bu yàggee day wane ni kon produit bi donc amatul benn efficacité foofu disparaître na day laaj kon ñu mënewaat ay yeneen opération au niveau du marché ak yeneen bërëb yoo xam ne ni dañ fay daje. xeex bi ñuy xeex ak Covid 19 tax ñu càkku rek ci askan wi ñu rek doxal bépp ndigal boo xamante ni jëm na ci wàllum cet ak itam wàllum restriction ngir rek ñu fexe ba feebar bi di Covid 19 bañ a law ci diwaanu Touba.